bi dafa wàññi woon sama activité yi yu bari sama habitude yu ma amoon yëpp presque dama ko mujjee wàññi ndax déjà sama suñu waa kër ay mag nañ te mënu ma woon jël risque bi di génn si mbedd bi di ko attraper delluwaat sama kër di leen ko wàll. bu ñu reprendre daati école dafa amoon ñoo xam ne di ñoo amoon grippe c'est par la suite je pense que fan nañ ma ko wàlle man tamit ma am grippe. ci la sentir ni que amatuma goût amatuma odorat toog naa une semaine je pense que aw ma ko ndax dama wàccoon benn jour rek tëdd feebar carrément sama yaram bañ ma amoon fièvre parce que suñu kër ay mag fa nekk te on sait jamais déjà sama yaay moom dafa drépano léegi ci laa demee euh, Gaspard Camara fa defee test Covid bi. après ñu ne ma da ngay toog 24 heures xaw ma 48 heures pour test yi yéen. de vaccin bi ne veut pas dire ni ko doo leen attraper Covid bi moo tax ma leen di ñaax ngeen di respecter mesures barrières yi di ko suivre à la lettre pour aar seen bopp aaraale seeni waa njaboot.